asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi Equivox TV ñu ngi leen di nuyu ah, di leen jaay jëfal ñu ngi fii nag li ñu doon waaj ay mois di ko waaj ay semaine di ko waaj ay jours te ñu ngi nii egsi nañ bi Grand Théâtre Wally Seck léegi dañuy dugg ci biir xool invité yi daal di ñëw fekk Wally Seck yéeg ñu toj fi waaw koy jaajëf topp leen ñu. Faramareen bi bu ayee xam nga ni Faramareen yi ñëpp fii dajee tey ñu ànd ak suñu frère Mandiaye Seck Mandiaye nuyu nañ la. maa ngi lay fay maa ngi sant Sénégal di Eh, di gërëm sama ñaari waajur ku ci mel ni papa ku ci mel sama yaay nday soxna. mais tey euh, bis bi tey duñ na lu la indi ñax ñëpp xam nañ ci nga bokk. waaw waaw eh, eh, normal wali ku xam-xam ni que ñoo bokk nday ak baay. coono ko jur Ousmane ma jur. c'est normal ma teew. c'est normal nag ma ñëw def li war. ñu koy ñaanal bésam bi yàlla na réussir yàlla na am lépp lu mu bëgg rek yàlla nag ko yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba defal waaw. mais man Ndiaye fan yii ñu ngi gis euh, sa single bi yaag Bass Thioung euh, single bi nu mu la dikkee. waaw waaw morceau bi nag euh, dañu dem studio rek nekkul sax lu ñu préparé lu ñu improvisé la. ah bon improvisé mu dal noonu. man maa doon dugal Bass jékki-jékki rek man ko booy ñëwal nga def mu def affaire bi nice Sénégal yëpp apprécier ko maa ngi sant Sénégal nag di gërëm àdduna di gërëm aussi sama ñaari waajur di gërëm sama yaay encore di gërëm ma mère Ndeye Soxna Sène waaw. les projets de Mandiaye. waaw di leen wax album Mandiaye sek incha allah di ngeen ko am le lendemain de la Korité bu soobee yàlla. lendemain Korité incha allah. titre yi nu muy demee lan lañ lan lañ mën a Mandiaye indil lan lañ mën a xaar. bon Mandiaye way na étudiants yi way na euh, sëñ Fallou way na maam Limamou Laye way na mbëggeel comme xale jigéen lu ñu bëgg. desaay way na aussi euh, yaay Nogay mi nga xamante ni. mooy euh, euh, sama maam. yaay Nogoy bu Papa Thion ak Ousmane. Ousmane jaajëf ñu ngi lay remercier ci sa bésu frère bi kontaan nañ ci bu baax. la gën a bëgg kontaan jaajëf. yaa ma nuyu nañ la. maa leen di fay. noo def. tey lu loo ñëw tey sa bésu frère. ah waaw ñëw rek war a ñëw ñëw. waaw dafa xew la te xew mi xajatul fii. mais single bi génne na def buzz macha allah san say rafet euh, lu yaa ma di waajaat. waaw waajaat lu rëy rek tubarkalla macha allah dañ may ñaanal rek tubarkalla fa ma jaaroon ba génne ko ma jaaraat fa ba génnewaat beneen. dëgg la kon ñu ngi lay remercier di la jaajëfal. kontaan bu wér a wér. loolu mooy waa Equivox. waa Equivox di leen wax ne nan jël lii rek Babacar Ndiaye ko ñaw wax amul. waaw wax amul dara amul dafa tuur jël. boo ñëwee ma jox la bu la laay ñëw. ñëwaat sama kër. fan nga dëkk. man fii daal dëkk kaay sama xarit bi waa kii moom sama xarit la Cheikh Anta loolu yàllaa ko dogal waaw mu nekk ci groupe Wally Seck kenn dootu ko présenté muy tëgg lu neex di feccaale ci suuf lu neex Cheikh Anta nuyu naa la tërë di rek maa ngi lay di la màggal Cheikh Anta tey loon ci stade bi non tey la ma la waxoon laa lay waxaat rek tey dana mel ni lam gënu segg booleeg meew man costume yi conférence de presse laa ko tegoon lii lan la conseil des ministres jëlal ma sañ bi waale tërë di macha allah waaw te bisam macha allah nii rek la mën a demee ndax yàlla moom da koo da koo dimbali xam nga Wally daa baax bu doon bu ko déggee rek ñu jox ko dëkk jeexal naa duna. mais costume bi macha allah. boo oh, boppam. mais est ce que xam nga man appui man dafa mën ni daf ma jàpp nag. non jàpp na la. mais man li may tëgg tey géelu ma kenn yow laay géel. dinaa la battre ba nga kontaan. barke Cheikh yow laay géel ndax xam nga ma xam. kon rafet maa ngi sa <laughs> waaw ñu ngi nii ba esplanade grand théâtre ah, ba tey gan yi du jeex ki Astar la kenn dootu ko présenté Astar nuyu nañ la. maa ngi lay sant bu baax a baax a baax. <laughs> Astar namoon nañ la fan nga nekkoon. ay waaye nekk xam nga rek nekk ci ay tolof tolof rek xam nga yombul mais bon comme que Astar ñëwaat na rek lépp bu baax na. <laughs> mais Astar ñëpp xamoon nañu sa yaay moo nekkoon sa ange gardien. moo la doon suivre di la toppatoo et tout mais absence bi lan la la def est-ce que liggéey bi freiné wul et waaw métti woon na trop moom c'est pas facile parce que ko xamante ni moom moo nekk ci liggéey bi moo nekk ci lépp lép si ginnaaw sacrifié tout pour topp sa ginnaaw pour nga jëm si kaw donc euh, bu jékkee nekkatu fii day day métti daal a ngay sentir manquan bu mag a mag a mag mais xam nga dama dem ba amatu woon kàttan moo moo waraloon toog bi yëpp mais après dama xam ni yàlla la rek daal gëm yàlla rek euh, fas yéene continuer rêve am daal incha allah. mais est-ce que staff bi dëgëroon na comme maire bi ni mu fi nekkee woon ba tey parce que c'est yaay kenn mënu ko remplacer. dëgg la mais est que staff bi mi ngi fii ba tey. waaw dëgg la yaay moom kenn mënu ko remplacer mais macha allah am na maa ngi am ñoo xamante ne ñu ngi sama ginnaaw di ma supporter bu baax a baax depuis loolu bàyyiwuñu donc maa ngi leen remercier bu baax a baax a baax de passage. mais album bi fan la toll. yii bientôt incha allah su ma la waxee bientôt rek mooy léegi léegi euh, di remercier ñëpp fan si tout le monde vous aussi je vous remercie vraiment euh, si sa fait plaisir daal. looy Euh, maa leen di remercier bu baax si interview bi te xam naa na ñëw def ak yéen interview incha allah. incha allah merci beaucoup. allez na yàlla leen fi bàyyi bu baax ba affaire yi màgg a màgg màgg ba ngeen ubbi seen télé bopp incha allah. allah kontaan nañ ci. maa leen gën a kontaan foofu. waa Jokko jam ngay am foofu ba tey. waa jaayul. kese. bàkkul sàcc na jëlal ma suuf gi xale bi sàcc na bii resul naa ngay am foofu noonu. tey mënul yomb famille Seckeen Bambali nuyu nañ la. waaw maa leen di nuyu di leen ziar bu wér a wér a wér di nuyu waa Sénégal waa àdduna vraiment di leen wax ne bëgg nañu vraiment kontaan nañu ci yéen. mais tey sa bisu frère sa grand frère tey nga ñëw tey loo indi sa frère. bàyyi leen di naan sama bésu frère nee naa leen sama bës la man. ah sa bës la. waaw waaw kon sa sa waaye sàcckat yëpp dañuy feeñ tey. Eh, loolu dina dina métti. yow bàyyi yow xolal noo xolal koc ma fay rek yow. nga fi ma sàcckat yi nag dañoo nar a feeñ tey. mais single baa ngi tëkkal jamono inspiration bi nan la la dikkee. waaw waa Sénégal la rek. waa Sénégal xam nga sénégalais yi ñoom ñoo lay motiver à ce ngay xalaat sénégalais yi ñoo lay motiver à ce ngay def leneen ak leneen ba tax na ñoom lépp laay jël delloo leen ko di leen sant di leen gërëm vraiment. Ah, mais mbaa xam nga ne bi na fi toj tey. merci beaucoup. bonsoir salaamaaleykum man la Amel Gabana le lion de Bonabéry. bonsoir on est très content de te aujourd'hui euh, pour le single de Wally Seck comment c'est venu entre vous deux comment vous vous êtes euh, rapprochés. Euh, ça s'est fait au feeling. nous sommes deux jeunes. Moi, je suis un artiste, euh, je camerounais et je pense qu'à cette époque, Wally avait besoin de commencer à internationaliser sa musique, tu vois. Donc, euh, il a adhéré, je lui ai présenté le projet et il a kiffé, quoi, et le son est sorti, voilà. Mais tu t'es installé au Sénégal ou bien tu es toujours au Cameroun Ça fait un an que je vis au Sénégal maintenant. Déjà Jerry Jeff Sénégal, je veux dire. Ok, merci. Ah, nana, trop. Euh, salam alaikum, Equivox, Bataya, Nigini, Agigi. kenn dootu ko présenté ah xale osé xale ceekete xale rafet ah kontaan ci waa Guigui nuyu nañ la. maa ngi leen di fay bu baax a baax. tey lan nga indi sa bisu frère Wally Seck muy ndaanaan kenn dootu ko présenté. waaw waali moom vraiment tey lii dama ci kontaan. ba pare euh, dafa nekk artiste boo xamante ne daf ñuy dooleel ñun artistes yi li tax mu ñuy dooleel mooy daf ñuy may fit ku gis lii di nga xam ne musique Sénégal mi ngi dox ñi naan musique Sénégal doxul parce que 17h ba tey il paraît que ñun ñaa ngi fi rang ñun tey bi ñëpp ñu am fu ñu gaare problème la woon. donc euh, di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér gu yaram di ko ne anniversaire am bii yal na ko féete ay ati ati ati at yal na gàddu dem ba màgget be jaaw gàddu kaanam sax ñëw di anniversaire. mais les projet de Guigui Guigui fan la toll. waaw ah, album rek xam nga artiste moom wéy lañ ko xamee album ak reprendre incha allah après euh, seen ramadan bi incha allah ñu reprendre euh, soirée parce que fan si yaa laaj nag fan si yaa laaj. mais baa du indi coow gi gi da daan génn rek fa laale coow lu bari poussière bi jóg. wàññil rek. waa dinaa wàññi xam lan moo tax may wàññi ma la wàññeetu ma sax. <laughs> damay tey ngaa wàññi wala coow lee la ji. waa il paraît ah gisoo temps ku ma gis na ma dama am yaram sant yàlla. Ah, kon baax na ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup ok. waaw ba tey ah, ñu ngi nii ànd ak Sow Poulo Diéry borom nag ak meew yi euh, kii mooy doomu Papa Thione kenn dootu ko présenté umu nuyu nañ la. maa ngi lay fay di la ziar di kontaan ci seen teewaay fii bu baax a baax ci dooleel Faramareen bi tey ku gis ni ngeen mobilisé woo yéen presse bi ngeen xam ne ne seen xol yi da ngeen ko jël rek macha allah euh, jox ko Faramareen bi poignard dina leen nag macha allah dama defee ne woon euh, xale Faramareen yi rek ak xale waaliye public bi rek la séquestré ci xol waaye yéen. yéen a séquestré ñëpp la séquestré barki yonent bi man magam sax fi mu daf ma daf ma dama teppati ko fi mu toll <laughs> mais umu mais umu umu saw mi ngi mel ni waali bés lay tëgg bés bi danga ko yéen une semaine toogoo <laughs> man le damaa bëgg réussite am <laughs> mais umu temps gis nañ clip bi umu umu sañse yi bari na umu fël falaale umu lan la kan moo nekk ci gannaaw umu saw ah macha allah xam ngeen ne Oumou Sow moom wax dëgg yàlla euh, day day day dox ci sañse comme day dox ci sañse macha allah am ay mag yoo xam ne ne sañsekat lañu ku ci mel ni Bigué bis collection nekk kanada robe bi fi mu toll nii 4 jours la ko DHL pour mu ñëw ah dëgg neexul maa ngi daal euh, di def di def ay yëf daal. <laughs> mais Oumou taay macha allah gars la ñuy xaar. macha allah est que dàqewoo bul wax loolu nag xam nga man dama fidèle fidélité moo ma fi taaj ba tey <laughs> fidélité ñaanal leen ma rek fidélité daal moo ma fi taaj incha allah te ñaan nañu yàlla daal eh, yàlla teg si loxoom ndax yàlla lu mu teg loxoom eh, yaakaar naa ne nit mënu ci dara. <laughs> mais bu ma lay gisaat bëgg naa nga ne ma madame. yow lan nga. madame madame. non non non danga tooj non non non danga may tooj. yow ñoo bokk bagage célibataire. sama jabar la. oh yee. sa jabar la waaw.